ci mafia Ablaye Mbaye maay woo ñëpp di nuyu tamit waa ñoojoor bu baax di nuyu Moustapha ak général ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant di nuyu samay garant ñoom Prince Zo ak sama mafia ziare ñoom Njaawo Darius Fallou Faye Adama ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant waaw. jaajëf jërëjëf boobu moom mooy deuxième combat bi ñu jëm ci troisième combat bi incha allah SMA SMA yi euh, écrit Dalifor mbooloo. bu laal écrit Mohamed Ali sama maa ngi lay nuyu. waaye Ba lay fay. naa ngi sant yàlla bu baax. mooy bi nga fi toogee ba léegi yaa ngi napp booy bi. <laughs> non booy bi daa comprendre ah. baay fu ma jaar moo métti baay Ba la yow xam nga loolu bu baax. Mm-hmm. billaahi di sant waa Dalifor bu baax a baax ak waa buun waa Malika waa Kër Massar ñoom ñëpp samay gars yi nga fa maa leen di sant bu baax a baax di sant sama grand bi Kapi maa ngi koy sant bu baax a baax di sant ñi caabi féete ginnaaw. waa chambre 4 maa ngi leen di sant bu baax ba ay ñoom armée maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw. fay naa la bàyyi baa waaw maa ngi nuyoo ginnaaw ma sant yàlla julli si bi maa ngi sant samay ñaari waajur. di sant yéen ñi ma fekk si plateau bi yëpp mbër yëpp champion yëpp. waaw non kii moom amul may wax ak moom. yàlla mil moo fi rek. voilà. ñu ne ko yalmin yalmin moo fi rek nama ngaa ngoon xani xamu hmm. nama ngaa ngoon xani xamu paj paj paj joolaa bu dëgg séeréer laa hmm. man fi ma jaar moo métti hmm. yow doo ma téye billaahi ay ndaanaan laa bëre sam premier combat laa ñàkk sook de jànkalaar moo ma daan combat bu métti ay combat yu métti laa jaay ay bu Malika bu Malika ay combat jànk sa waay booy tee doomu Bignona bi ngay waxal de doomu jaaroon bi fël mëre kulaay jikes kule maa kule ba yow saa yow da ngay xaar. nee na combat jànq lay bëre. man mineur laa du ma jànq de. combat mineur ngay bëre. di nga xeex di nga bëre soo dëgalee sa bopp. soo dëgalee sa bopp laa. billaahi di nga xeex di nga bëre. billaahi du musuma sama combat tapel sama combat. musoo arrière. billaahi wallaahi taala musuma arrière mbër. doo ko arrière non non jamais. dina arrière de. nee la mbëtt mi lu mu guddi guddi si ñag bi lay faral si. xanaa déggoo mbëtt noor laa. mbëtt newet nga hey eh, man la de bul laal bul laal jour ba dama lay laal ba jéegi la mhm. waaw li nga laal dégalu moo de doomu joolaa bi ngay bërale doomu biñona bi mhm. billaahi yow fi nga ko fooge du foofu de <laughs> saa dama maa gis xeeb mais affaire bi ci géew bi saa bi ñu tasee billaahi dama gis xeeb ma di ree saa man kanam bi moo nooble nii wala yaram bi moo nooble nii de yaram bi moo noonu. mais doole mais bu ñu dalante ba at bi sifflé génn suñu diggante ba ma tibb suuf taalal sama ñaar loxo ñëw fekk si la. saa di nga daw de. sima lii nga sol ni moom laa sima la doomu gaynde ngay waxal. Eh, doomu gaynde gi la. kon borom randam borom caaro yi man la de. man maa tudd gaynde maa saamaan. yaa tudd gaynde waaw. sama doom nga da ngay. waaw yow ngay bukki. bukki nga. fu ma la fekk sa àll bi da ngay daw. bilaa wala du ma tiit si àll bi laa juddoo damay jàpp ay yeew di ko lekk barki Alxuraan. Ah, yow mi billaahi wallaahi. signature bi bu taxee dëggal boobu mu. yeew yeew na defar coop ko. coop ko. may dem Grand Town mi ngi jàng arab. billaahi may dem Grand Town yaa ngi jàng arab. yow yeew lay defar. yeew ah. yow buñ koy togg moo loolu rëng-rëng ji foo da nga koy dégg ba ko rek muy ñor xam nañ li si yow. Mhm. su ma la jàppee. bàyyi ba la li nga xeex di nga bëre loo xamul de. ah xam naa ko. wala sa turandoo lay jox kele la fa demee nag bàyyi bu laal kii suur ba xoolal du def dara dama koy laal ba jéegi ko kii ñu ma ñoo ko gën a diis ñoo ko gën a métti man mosuma bëre ku ma ku ma tollool ñu ma ëpp rek laay bëre ku seetaan samay combat billaa te ay combat yu métti ay jaar-jaar ay ñoom sook de ay bugaan ñëpp laa daan ay Nandi Fall numéro 2 kon kii mun booyloo kii mun maa téye Pambay Junior ay booy mosul daanu laa daan dëgg la mais bii bul laal la du laal ba jéegi la woote moo di woote waa bi ñoo na bu baax a baax waa jaaroon waa fëlmëre waa jikes waa Kafes waa Kulaay waa Tangori waa Jiringumaan maa ngi leen di sant baakari maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax waaw yow tamit jàpp nga si combat bi di sant sama maara bu nekk Ziguinchor maa ngi koy sant bu baax a baax ak waa Bignona général sama papa ji maa ngi lay sant bu baax a baax no booy bi xoolal def ko nànk rek ba jour ma ñëw duma ko daan ko jëli bu rëy bu ko kenn foogewul kii mënumaa tee bàyyi baa la man kuy ndëkkee spaghetti du ma daan. maa ngi sant yàlla waaw julli bi maa ngi sant samay ñaari waajur bu baax. di woo waa waa Randam gépp waa Caaroy gépp te soo guy ga sam-sam jàmm gën bàyyiwuma ma nee na woon seen doom bu laal mooy bëre na ñëw jàppale ko di sant Moussa tamit waaw transporteur fi mu dëkk Roset waaw ginnaaw kër sëñ Touba maa lay sant bu baax di la woo si combat bi waaw di sant la sikiri di ko woo si combat bi Pam si maa ngi lay woo sam waaw sama yaay maa ngi lay woo bu baax sama tante di woo samay mag ñoom Tapa ñëpp waaw ku jum daal ak booy yi ma bàyyi Amet Kanté Jibi Kumba Amet Baye Daaru parce que mbay waram dëkk bi maa lay woo si combat bu baax di woo ñëpp daal képp kuy bëggee bu laar rek maa lay woo si combat bi. jaajëf defaral ko di woo di woo bu baax a baax awaña waaw bug naa nga jàpp si combat Baye Diop tamit bëgg naa nga jàpp si combat bi bu baax a baax a baax di woo sama coach Dieng waaw ay entraînement yu métti la may teg billaay wallaay Baye Balla kii mënumaa téye. jërëjëf. troisième combat bi ah, ni ma jëm ci quatrième combat bi rek euh, rëg-rëg bu Bambey ah war cee bëre ak ki nga xamante ni moom mooy loobu ndaw loobu ndaw loobu ndaw loobu ndaw de boobu léegi mi ngi dem ndeen ndeysaan kit ah, sa yaa ngi baaxul sa yaram bay xasan li sant bi ginnaaw bi ñu sant ñaan suñu ñaari waajur di gërëm waa Géejawaay di nuyu boo notaire bi ma àndal mu ngi si porte bi. booy notaire mbër. waaw ñoo ànd dañuy dem si buntu bi ñu tee ko mu ngi si buntu bi dama xaar. Mm. ah di nuyu sama kus yi Elaz kusu Mbis kusu Baye Fall kusu matinal bi seen caali di nuyu sama kus yëpp gis naa li ñuy daj si man ak mafia fajar bi. waa jamono de ñoom am Ndiaye maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama waa koñ di nuyu àdduna ndax làmb ji billaahi wallaahi dama see soxla ndimbal waa Géejawaay mm. soxla si jàppale sama deret nag laay woo ndax man doomu ngembe laa direetu ngemb ak mbaaxeen saa mooy daw sama yaram di woo samay mag samay doom baay Baara Gueye Cheikh Mbacke Ahmed Naar ñoo ñoo bokk direet direetu ngeen bi daw si ñoom mooy daw si man li ñuy jàppale mbër yu mag yi na jàppale seen rax di leen woo si làmb ji waaw ziar naa rëg rëg Bambey ziar naa leen salaamaaleykum maa ngi nuyu assistance yi fi teew ñëpp ku ne sa tur ak sa santan ah. di nuyu ñi fi teew ñëpp waaw di nuyu waa NGB Bambey Séréer Bambey ah waaw ak gars ma àndal ci suuf ñoom ñoom Diaz Ousmane ah, Abdou waaw di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax a baax ak papa Diouf maanaam ah. maa ngi koy bégge bu wér a wér a wér di sant As ménagère ah naa ko bu wér a wér ak coach yi yëpp waaw. loo koy tegal le pank bi mooy wàcc le 18. bi pank bi. pànk bi mooy lan. baa ngi nii. bi maanaam da pànk daal ci mooy waaj. Hmm. ataluma kii. Hmm. waaw dama kaa xam bu baax a baax. maa ko mën fuuf ëpp ko doole. ngeen kaa nekk xare. paala moom paala. waaw pànk bi ñëw li sànq waxoon rek. mag du daax day koj. paala moo la jàppee nga xam ni paala. Hmm. kii tàppet moo tax muy demandé ami whatsapp kii tiktok. di ma demande amee ma agité ko. est que moom la. waaw ay vidéo moo nekk si biir TikTok bi. mais mais loolu du dara. tapet dugg sama TikTok di sama samay vidéo. Ah. maa si trois combats trois victoire bi mooy sama quatrième combat quatrième victoire. Hmm. kii mënu maa yàqal suma yoon mënu maa téye